ah jërëjëf kon nag euh, mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci TMS TV tey dañu am mbégte ak kontaante ndax ki ñu indi euh, Somone jëmm ji ñëw na mooy ki toog nii di soxna Aminata jóob di doomu Abu jóob ah kon nag alaaji Thierno Moulay Sow le grand marabu guérisseur traditionnel the king of the all the king sa patiente ba nga faj génne ci moom lu ëpp fanweeri jinne wér na macha allah ba yàlla jox ko mu ëmb ba imbi ñu fas yéene ko nag ngénte suba tey nag la céet gi moom moo ñëw nii nuyu si TMS TV alors euh, nga laajal ma ko ne ko bi mu gisee TMS TV ñëw sëriñ bi yónnee maanaam délégation moom lan la yëg. o wiima o wima ko jiiɗa komi gari o faade hannde hokko ɓerde ma hocci hen sala mi weltima haalnak wayno waali kurma moɗon sala mi weltima mi salmini ceerno mulle mi weltima wat jaranomi no feewi mi yewnima teddungal ma waɗi ngal teddungal ma waɗi ngal كلمة تلملة نيجي تامها أبدا كواريكو يا بان يا بان بجارنا من في يلا جون بالله moƴƴina battane ma a jarama yimo soh seydi soh Euh, waaw salaamaaleykum waa Thiès kii mooy Aminata Diop quoi kii ñëwoon Dakar si Serigne Thierno Moulay Sow moom nee na bu ma gisee bi ñëwee fii ba léegi daa kontaan daa nekk si si affaire rek loo moo tax ñëwul depuis démb mais signalement nag mënul fay Thierno Moulay so amul fayam waaw boo gisee jour boobu ba léegi musul fàttee Thierno mulaay so te nen namu na Thierno Moulay Sow franchement namu la Thierno Moulay mu nekk nii nee na yéen yéen yéen délégation bi leen ñëw fii aw leen seen fay quoi mm-hmm. di leen ñëw fii pour yaatal ko xool ko moom lu mu demee situation am bu mu jigee foofu ba léegi mm-hmm. dara dali ko bu mu ñëwee fii ba léegi dara dali ko dañ sant yàlla bu baax a baax di gërëm sëriñ bi di ko ñaanal wàccu waajuram gudd fan ak yërëm mm-hmm. loolu rek lu ñaanal quoi. léegi ko waxoon mais nga ne ko ba mu jógee ci sëriñ bi ba ñëw est-ce que am na lu mu yëg walla am na lu mu gis. gilgumiɗa dakar ha faade hannde est ce que a ah, yani walla yanani walla ko jiiɗa hoorema haydara haydara mi yiyani nene bomo jogui tawn bo leegui dal jaam alhamdoulillah hmm. daru dara jotu ko eni sante yàlla bu baax digo gërëm sëriñ bi nag man maa moom maa ñëwoon foofu mm-hmm. yow moom xaw ma la nag mm-hmm. man moom ñoo ñoo àndoon foofu quoi mm-hmm. kii moom na ma ak Moustapha ak yeneen gars yeneen ak yeneen Diop Boubacar ñu maa leen nuyu quoi mosuma la fàtte jamais. léegi laaj ko nga ne ko uy nee ko ndax moom bu fekkee ne doomam bi xaw na dëgër nag xanaa dina dem nag gane si seen mu la dem seeti ko. so ɓi yehi ha tiiɗi a tiiɗi anene ɓi taw ma yaha rontoya yahan ke nen inchallah dina ñëw foof ah kon nag dégg ngeen ko kon nag ngeen tàccu leen Aminata Diop waaw waaw waaw acca acca jógal jógal jógal acca waaw voilà topp ko en caméra voilà mu ngoog kon nag xanaa ñu ngi préparé ngénte bi suba la ceet tey ci guddi la tey lay dañ koy gunge après dem ngeen di allah rabbi kon nag jërë ngeen jëf monsieur fii waaw asalaamaaleykum euh, mbokk téléspectateurs yi comme ni ko Moustapha ubbee sànq bi ñu yegsee ci kër gi nga xam ne fii la ñuy tuddee maanaam fii la wàccee woon seet bi muy Aminata tey suba nag ñu xëyoon ñëw ci tudd bi ci ngénte bi euh, ñëwoon nag seet si Aminata seet si njaboot gi. Euh, ànd ak suñu suñu suñu suñu mbokk mu baax mii nga xam ne lépp lu ñu wax ci ci olof moom moo ñu koy tekkil euh, xale bi nag tudd nañ ko mu ngi tudd Amidou Amidou njaay Amidou njaay moom lañ tuddee nen bii liir bi alors euh, ci loolu nga wax Aminata ne ko sëriñ bi moom bi mu xëyee dafa yónnee yónnee maanaam jàppale jàppale bi nga xam ne mu ngi koy def ci bés bi parce que nga ne ko bés bi moom du bésu sax euh, euh, abu Diop mais moom sëriñ bi moom bésam la ndax bi mu jëflantee ak Aminata yàlla suñ borom bi daf ko ci jox ndam lu rëy moo tax kii doomam la loolu tax mu indi ñaari saaku ceeb bi indi bidongu diwliñ bu mag ak euh, ndox moomu mu indi ndox mi sax dañu dem fekk foofu jeexal mais fukki fukki mbuus la waxoon waaye juróomi mbuus yu mag moom moo fa des ñun di juróomi mbuus yi donc loolu nag ba mu ko defee daf ko def ak xeep bu sañoon moom waxuma la sax joxe mais moom dafay taal otoom ñëw ba fii waaye ñëpp xam nañ sëriñ bi liggéeyam ni mu baree dafay fanaan di liggéey ba bër set fi mu ne nii boo demoon tey clinique ba tey ni fa nit ñaa ngi fa toog di di di muy jëflante nit ñi loolu xat-xatu jamono rek moo tax waaye ni ko moom moom mooy ñëwal boppam kon nag mu ngi leen di sant yéen ñëpp vraiment di gërëm aussi tamit bi ñëwee ba léegi ni ngeen ñu teeroo dalal ñu jërëjëf. kon Aminata comprendre na am nar ko idéal de ko. wax. tekki ko ci salaamaaleykum o wiima kamɓe ceerno safruma e dow ko safruma o ene jogii ene weltaare mawnde sibu ɗum safrude neɗɗo haa daña jam allah waɗi noon a safraama allah rokkiima a dañii gorko haa a jibini ceerno o jaggirma ka ɓiyi ko kanko wona makki o waɗani o waɗani ko an e nder yange he inde he o addimo sahuji ɗiɗi maaro e ndiyam e bidon nebam o addi ko an sibu ka ɓiyiko kadi omo yewi ɗum sindo sago makko ko kanko ummorno toon o ara kono a majjani to noon wayi omo safra yimɓe omo waɗa fofoof joni noon o salminima kadi o weltanimama e dow inde he o dañani arde joni an ƴewata ko kalɗatan ko mbeltinooma beltanima a jarama allah jarama moƴƴi moƴƴi mune ɗum wa weltima hen fewi o jarama yo allah o jarama fewi metti safru neɗɗo ha sella weeɓani o jarama ko yaltinayam koni heewi yaltinde neɗɗo jinni trente jinni <laughs> weeɓani salminimamo juurimamo mi yewnimo o jarama allah <laughs> jarama mi ñaguima duwaw allah ɓeydu gandal Euh, sëriñ bi sëriñ bi ah. moom lu mu wax ni hmm. daan nga ko dégg dégg nga ko fu ne dégg nga ko Dakar dégg nga ko fii ba léegi ñun ñu ngi lay gërëmaar rek hmm. moom instant bi tamit nee na lu mu am ci yow lu jafe la faju na fu ne fu ne dem na foofu ñëw na ba ci yow nga génne ci moom 30 32 xaw ma jinne waaw ba léegi moom lu ma yëg ci yaramam bi lu normal la dafa oyof normal nga jàppale ko moom ba mu am jëkkër amul lenn lu mu la mun a fayee lu dul am nga jaaraam rek yàlla yàlla yokk kii euh, xam-xam bi Thierno Moulay lii rek nga fi am ci dëkk bi ñu ngi lay sant rek amul kenn ku la xam fii bu baax a baax mais ñu ngi lay suivre ci YouTube bi moom vidéo bi ñu ñëpp seetaan nañ ko fii daanaka wet di gis bokk ci moom bu ma demee foofu di faju ñëpp yëg nañ mu ngi nii pappam ak suñu pap ñoo bokk ndeeg baay moom ak kii ñoo bokk ndeeg baay ñu ñëpp ay famille lañ xam nañu dem na foofu faju na ji te wéer na boobu ba léegi amul dara lu ko dal lu dul jàmm kese ñu ngi sant bu baax a baax Thierno Moulay loolu la doon expliquer moom it merci. voilà donc euh, téléspectateurs yi ñu sur la TMS TV Moustapha yéen a dégg témoignage boobu euh, tey vraiment bi ñëwee ba léegi gis nga liggéey bi fi TMS def tey nag moo doon bés bi maanaam bés bu mag bi mooy bésu tudd bi ndax li may wax rek ne euh, sëriñ bi fépp fu. Euh, maanaam jëfam dem turam dem na fa fépp fu mu euh, maanaam euh, doomu aadama nekk rek boo fa laajte dinañ la wax ne xam nañ na mu lay Sow donc maanaam turam wër na àdduna jëfam wër na àdduna te ña faj te gisu leen sax moom moo ëpp foofu ñi nga xam ne dinañ ñëw ci moom di faju ndax loolu nag yàlla moo ko defal boobu boobu barke moo ko defal boobu kiraama moo ko yéegal ci maaxama mu mag boobu kon nag ñuy ñaan yàlla di ko ñaanal moom tamit sëriñ bi yàlla gën a dëgëral taxawaayam parce que nag nekk bi mu nekk ci àdduna amal na njëriñ nit ñi te li ñuy wax naan dafay jàppal nit ñi ci zaahir di leen jàppale ci baatin te tey wanewaat na ko parce que mënoon na rek kii kat faj naa ko ba pare vraiment pare naa ci moom waaye xam nga ne diggante ndakaaru ak euh, somon sori na lool lool lool mu jël oto def ci essence jël personnel am ne leen dem leen ngeen fekkeel ma ma ma ma bés bi tey mooy wane na rek tey bés bi tey daf ko def bésam daf ko def bésam yéen tamit vraiment ñu am kóllëre ngeen asuy tamit Abou Diop tamit moom tamit mu ngi koy gërëm bu baax ndax taalibeem bu baax la tout le temps dafay dégganteeg moom moom nag lii rek la bëgg maanaam dafa bëgg moom parce que faj moom kenn amul fay bi kenn amul fay bi waaye soo toogee ba mu yàgg nga jël sa téléphone wala bu fekkee ne ñëw nga Dakar nga dem seet sëriñ bi ziyaare ko moom loolu rek la bëgg ou bien nga am occasion yu mel nii nga def témoignage wax aussi loolu nga xam ne defal na la ko moom loolu rek lay bëgg moo tax lii tey mu ñu profité ci occasion bi defal ko ko donc ñu ngi ñaan yàlla di ñaanal xale bi di ñaanal aussi papaam ak njaboot gi yëpp ngeen toog ba xale bi ñu toog ba ñaan dañ koy takkal jabar yàlla mën na ko def yàlla na ko yàlla def ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant sur la TMS TV. nañuy seetaan sur si seen chaîne YouTube internautes yi. kon nag euh, kii ngeen gis ci les images mooy mooy mooy la jeune dame Aminata Aminata jóob moom moom lañ muur démb mu dem sëy kër jëkkëram moom la ñu aussi xëy doon ko ngénte gis ngeen ko ci suba ñu wane ko mu uuf doomam bi ah alors Aminata nag moom moo defar ni ba mu baax taxaw nii vraiment ngeen gis ko en image vraiment euh, ñuy sant yàlla bu baax ah Aminata Diop mu ngi nii mooy mooy mooy mooy wasin bi moom mooy seet bi voilà nga gis ko alors euh, yusu nga jël ko vraiment en image gros plan alors mu déplacé nga jël ko kon nag Aminata Diop mu ngi noonu